waaw asalaamaaleykum mbokk face au destin ñu ngi leen nuyu di leen ziar xam naa dama bëggoon def euh, benn résumé rek ci li jot a xew tribunal parce que ni bu may dugal information yi nga xam dama koy capturer ci télé bii di asfiya yi euh, nga xam ne ñoom ñi ngi tribunal ñooy joxe information yi en direct euh, de façon instantanée donc ma def benn résumé rek procès bi moom mi ngi ko tàmbali une heure cinq donc ci le Omar Sall ñëw taxaw ci baar bi ak euh, euh, partie civile bi nga xam ni moo constitué président collectif international des talibés cheikh ak ñeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoom it dañoo def euh, plainte léegi Omar Sall moom gannaaw gi lañ ko tàmbalee laaj ay question laaj nañu ko ndax moo ni cheikh beneen diine la bokkoon ak beneen tur la amoon Euh, mu ne bi koy wax da doon jàngale nee na boobu en quatre-vingt-dix-sept la mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept nee na da doon jàngale ay taalibeem euh, yoo xam ni toll nañ ci ñetti téeméer léegi nag ci wax jooju mu waxoon am euh, Seydina Cheikh nee na moom ay waxu jàmbur la doon nettali bi mu waxee lool nag président présidente bi laaj ko ne ko foo ko déggee Omar Sall ni moom xamatu ko daal di ciy teg ni Seydina Cheikh chrétien la woon loolu bokkoon na ci tâche bi ko gën a euh, métti ci dundam te bu doon tey du ko wax nee na te mi ngi jéggalu képp koo xam ne naqari na la euh, ci ci la nag kenn ki nga xam ni ci ñi doon plainte la bokk tudde Demba Ndaw moom ci la daal di jëlee kàddu gi euh, nee na ci réew mi ñu nekk ku fi waareete wax kàddu yi tiijaan yi ngay waxal ndax ñoom rek ñoo fi tàllal mbalaanu wasifa di wax allah allah maanaam ci loolu mu doon wax ni jubluwu ci woon tijaan euh, yi waaw tegaat na ci tamit waxaat na ni daal moom li ko gën a métti ci àddunaam daal mooy propos yi nga xam ne wax na ko Seydina Cheikh ne la woon te euh, daal loolu bokk na ci li ko gën a métti ci euh, àddunaam beneen li nga xam ni tamit wax na ko ndax euh, nee na moom euh, mi ngi xam dayob euh, wax ci ni mu toll li mu wax bi nga xamee ni ñu ngi koy déglu waaw nee na jàppul woon ni bàkkaar la waaye daal nee na bi nga xamee ni daal ñu ngi koy woo nañ ko tribunal di ko déglu ci la waxee nag wax ji ci la xamee ni wax ji mu wax nag wax ju rëy la nee na itam gannaaw bi nga ko waxee ci suba ga nee na boobu jégglu na waaw nee na jégalu na euh, en âme et conscience daal te xam na ni en âme et conscience lii lu metti euh, woon tijaan yi la ba taxoon na moom daal dinay euh, jégalu waaw loolu bokk na ci lii wax yi nga xam ni wax na ko waaw ginnaaw bi mu jégaloo nag ci treize heures vingt cinq procureur nee na ko danga nga delloo avance rek Umar ne waaw kon dafa delloo avance procureur ne ko bu yeboo nga dellu jàngiwaat Umar ne ko waaw man dinaa jàngiwaat waaw euh, bokk na ci euh, li benn plaignant bi wax ñuy wax ku ñuy wax Alioune Dia Sissoko muy plaignant individuel moom nee na en matière électronique wax ji nga jot a wax dootul dañ maanaam nee na lii moom dugg na ci internet ba pare te dootul dañ daal di poser question mu ne est Omar Sall wax du metti génération sunu doom yi ñëw ëllëg waaw Omar daal di waxaat ni il regrette tout et du fond de son cœur moom daal mi ngi jéggulu waaw euh, juge bi ne ko Omar Sall la liberté de la personne s'arrête là où commence celle des autres waroo si sam njàngale ngay tooñ keneen waaw avocat bi pose ko question euh, ni ko cité ma ban parti ci jawratul kamal euh, moko wanni sayidna cheikh seytaane moko ko sa jawratul kamal umar euh monotul tont, ay nitam nag ñi ngi doon tambali di genn sal bi waaw loolu mi ngi xew 14 heures avocat bi ne ko euh, ndax xam nga ñi li ñuy def nu mu toll si ñoom maanaam wasifa bi seen lii ngay bida ndax xam nga dayo bi mu toll si ñoom omar nag daal di mer ne ko sëriñ bi man tijaan laa woon rek dafa doy manam lool rek doyna tontu 14 heures vingt nag Omar Sall mom neena mom dal kaddu yi mu yëkkati bu dee am na ñu mu metti euh, mu ngi leen di jéggalu benn avocat euh, Omar Sall nag laaj kenn ci plaignant yi mu ne ko yéen lan moo tax ngeen ni Omar Sall yéen rek lay waxal mu tontu ko ne ko ñun tiyaani ñun rek ñoo fi wasifa di lal mbalaan mbokk mi gannaaw bi nga video ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm bu fekkee gande ci chaîne bi nak bëssal fi nii ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat yi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax video buñu dugalati di nga ci jot jaangi jëf